lillahi wa rasuli communiquer bëri na façon communiquer ci lu bëri démb rek am na ñu fi def ay ay mbir affiche ne bii mooy coalition bi ba def fa photo ba def ay tuuru jàmbur ba def numéro jàmbur Pastef benn ba léegi waxuñu bind lañ def te ñëpp mënuñu liir te bind ñu ko sax ci page Pastef bu Ousmane Sonko seen page lañ dem naan moo ay voix dissidente la moytu leen nangamaan na loolu du communication on sait très bien ce qu'on dit bu leen foog ne ay Pastef ay yàlla lañ ah, du ñuy yàlla du ñu yeneen ay nit lañ comme ñun dañuy politique euh, jànguñu ko fenn dàq ñu ñoo politique dàq ñu ñoo wax dañoo musa politique ñun ba toll fii dañoo yàgg di rab di kaas di wax ba sénégalais xam ñu ci wax lañ ñu xamee ci wax kon bu buñ mënuloon wax ñukk lañ ñu fay def ne yàqu naqari ëpp ñu ñu xel ëpp ñu ñu xalaat gënuñu ñoo bëgg lu ñuy def gënuñu ñoo bëgg combat bi man du ma geenu kenn ba topp ci kenn di ko maral tuunam wala taatam wala ragal ko wax dëgg ku koy wax Macky Sall man bu ma ragalul Macky Sall ma ragal ay benn El Malick ah. ragaluma Macky Sall bay ragal El Malick ah. ragaluma keneen ak keneen ñu leen mut ëpp leen fit ëpp leen dayoo laay attaqué kon man <laughs> ragaluma ñooñu ku nangoo nekk geen foofu nga dangoo nekk geen ku nangoo nekk tuun demal doon tuun nga xam ne day rek nga la ngay encaissé ak i doxot doo wax sa xalaat ñi moo wax jàpp ñooñu def leen ay extraterrestre foog ne dañu am xam ba nga xam ni kenn mënu leen critiquer ay jënn lañ jënne ay yéefa ñoo loolu yow la yow sa nday moo liggéeyul ba jël ñooñu def leen ay ñoo xam duñu def erreur ay extraordinaire lañ kenn du leen dugal xel dañu war a déglu ñooñu ñun ñu sa waaye loolu yow la man bind yàlla bindewu ma noonu ma yor sama xel di xalaat yàlla bindewu ma cogg jàgg martun topp benn nit rek lu ma wax ma ne la waa lii lii déedéet je suis je réfléchis j'ai un cerveau j'analyse j'analyse xamoo luy stratégie parti parti bi amul Macky Sall dissoudre na ko may la ñu jaam ak luy stratégie parti bi comme kuy wax nag xamoo luy stratégie ban parti parti bi Macky Sall dissoudre génnoo xeex mooy parti bi dissoudre nañ ko mu naan ay stratégie parti ban parti parti bi nee nañ mënul dem élection dissoudre nañ ko ñii wax waxu coalition ñii laaj coalition bi dissoudre nañ parti bi kay coalition la laaj mu naan ma parti ban parti la may wax gars yi ex Pastef lañ wax dissoudre nañ ko ci kayit yeeg fépp partout ban parti nga may wax yow <laughs> bande de copains nga may wax nga ne quatre personne mu naan ma parti ban parti lay wax <laughs> Sénégal a ñëw waa ji ñëw ne la na parti ba seeyal na ko wecc mu naan kii naan ma xamoo lu parti bi di préparé ban parti parti bi yow la parti bi man la parti bi Khoureyssi Thiam la parti bi Ousmane Sonko la parti bi Cheikh Bara Ndiaye la parti bi Assane Sarr mii la parti bi Aïcha Fall la parti bi Modou Diop la parti bi Cheikh Kébé la. <laughs> parti ban la may wax donc gars yi loolu moo nekkoon sama idée ci la ma war a wax waa Pastef leen xamal ni rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk leen xamal ni communication bi des na organisation bi des na stratégie bi des na man nag maay Mollah Morgun sama jamono ba ba may dee ku ma war a wax dëgg naa la wax dëgg man maay Mollah Morgun nee naa leen du ma tuun du ma taat bopp laa xar nu mu kii kii kii am na bopp am nay tànk am na tuun Sénégal bu lu gis am na ay tuun ñoo xam ne ñoom tuun lañ dañ leen di doxat di leen tey kese ci ginaaw la nekk ay tuun lañ ñoo ñu ñooñu amuñu décision ñooñu bu nit bi demee dañ ciy topp deex <laughs> na tuun la rek ginnaaw lañ ne ginnaaw lañ féetee bu nit yi dañ ciy topp rek ñoo toppkat lañ am na ñoo xam ne ñoom taxawaayu tuun lañ taxawee ci ci ci ci suñu combat bi mais am na ñoo xam ni tànk lañ taxawee dañuy dox am ñoo xam ne loxo lañ taxawee am na ñu taxawee bopp man leen man du ma tuun duma genn kenn du ma doxat kenn du ma day bopp laa ci jëmm bopp laa du ma tuun du ma genn kenn du ma doxat te kenn du ma day <laughs> loolu moom man la kenn mënu ma teree li may wax kenn mënu ma dévier kenn mënu ma mënu mënoo jant bi du tàkk asamaan si di jaayu ba ma noppi ci li ma war a wax voilà kon muy leer muy almaalik ak muy biram sulay muy abbas waaw loolu lañ leen di xamal daal organisation redynamisation stratégie communication ku ma xool xam ne man voilà <laughs> amul ñu lu ñuy ragal wala lu ñuy tiit ci lu ñuy wax boobu ba léegi ñu ngi ci suñu xeex donc les gars ma leen waxaat leneen concentration pour la libération de Ousmane Sonko Ousmane Sonko sax lañu war a rayante mu génn kon affaire bi lijjanti na ko bu yàgg imagine leen boobu ñu ko jàppee ba léegi combien de temps la Ousmane Sonko waroon wax ak jaam yi ba léegi waaw yokk koy déggalu ma la <laughs> parti bi moom daa sa waay laaj leen ñoom kenn laaj amaloon affaire waa ju respectueux muy Birame Souleye musuma wax ak El te xam naa famille am xam naa yaayam New York xam naa yaayam mus nañ mus nañ bokk métro man ak yaayam mu xàmmee ma moom moo ma a yaayu El la famille am yëpp ñu ngi New York xam naa leen bu baax man yaayam laa xam benn jour dañ toog ni mu xàmmee ma ñu toog ñuy waxtaan mu ne ma man maa yaay El moom mi ngi àndoon ak frère New York lañ daje mais dama ne man à part Ousmane Sonko man laa wax man moo laa mori à part Ousmane déglu ma keneen lu indi sax dama lay laaj ba xam Ousmane a ko wax wala waxu ko <laughs> sa waay ji man laa jox bopp de Ousmane laa jox bopp moom laa jox nopp aw ma beneen complexe keneen kuy wax keneen amul ko nekk Pastef kuy wax waxam am naa complexe jàkkaarloo yow wax la ko Diomaye Faye c'est un ami fay Faye nami vraiment moo tax ma xam Pastef moom moo ñëw déplacé wu wax ma waxu Pastef di jël temps tout chaque six heures bu wàccee impôt domaine woo ma sama téléphone direct di waxtaan ak man may jël ay nit ci laa ko passé Hamza Diallo sama copain ci laa ko passé keneen ak keneen ak keneen ci laa ko passé ñu bari Diomaye Faye c'est quelqu'un qui est très respectueux bëgg liggéeyam fonk projet bi am ay idéologie di wax il est extraordinaire ce gars-là c'est la seule personne boo xam ne damay wax ak moom Pastef ba bu may def ay live Ousmane Sonko Adji Sarr il m'écrivait des messages on s'écrivait des messages les messages sont là man sama combat bi sama combat qui a duré combat bu yàgg bu yàgg la donc man ma complexe bu kenn <laughs> jëluma kenn def yàlla te ma kenn def yenentu ma kenn ne yaa détenir le monopole de la vérité absolue kon boobu ma xeeb sama juddu ma kenn koo xam damay topp sa ginnaaw di mar déedéet du ma golo du ma baabun du ma xaj buy mar topp ci nit ama gangster ama gangster dégg lu ma lay de dama ne sama xeex bi ku ko bëgg a tardel dama lay fël jàll wëm dox sama dox nii nii je parle souvent mi ngi ki ki jomaay fay la Diomaye Faye mi ngi parle avec lui souvent on se parlait on s'appelait on se parlait on s'envoyait des messages li may wax tey jii bu doon mi ngi fi duma ko sax def live dama koy woo direct il m'écoute je l'écoute on s'appelle Diomaye Faye moo fi sori moo tax ma génnee sax di wax nii pour ñeneen ñi parce que ñeneen ñi sequma ak ñoom dara xaw ma leen mais bu doon Diomaye Faye mi ngi fi kon ma doon def ak Diomaye nii di envoyé ay message mi ngi nii j'adore ta pédagogie artistique avec laquelle tu les choses accessibles c'est Diomaye Faye qui m'écrit on s'appelle on s'envoie des messages dama koy yónnee ay audio bu doon tey Diomaye Faye mi fi li may wax man xam naa ni moom xam na ni bu boobaa da nga ah,